saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa docteur Alioune président CNG ca ndaje mam doon amal démb ak presse bi moom président Alioune démb la doon jàkkaarloog journaliste yi fas yéene a wax doxalinu CNG ak fa ñu jëm tontu ci yenn tuuma yi ñuy yëkkati di ko teg ci ndodd CNG réponse de Alioune Sarr face sax loolee la journal ba xëy bind critique ya tukkee ci Yaxya Jóob Yékini tukkee ci Bombardier yépp président Alioune ñëw na jaaxle mooy Bombardier duuralam mu naan CNG na fi jógeeg na fi toog Bombardier bu dee xam ne li ko war xam ne loolu du cëram suñu dem ak suñu toog du Bombardier moo ñu koy wax moom dafa war a xam ne acteur la du décideur li mu wax nii waxu amateur la waaye du waxu professionnel exemple bi may joxe mooy bu Neymar jógoon ne fédération brésilienne bi na fi jóge it du ca wàññi dara loolee bu ko waxee it wax bu muy wax sànni ci ngelaw li la waaye mënu signe d'indiscipline au CNG amul benn wax bu débordé bu Yaxya Jóob Yékini Yékini moom it amut ak man benn problème CNG ba ñu bokk dégguma fa benn problème bu fa jàmm ak salaam rekk xew suñu diggante bu dee ca digganteem ak roi des arènes moom président CNG indi na ci ay leeral yu leer le CNG est prêt organiser un tournoi annuel ñun pare nañ ngir di organiser tournoi boo xam ne ci la xool kan mooy roi des arènes waaye tournoi boobee bu ñu ko doon organiser danañ teg suñuy condition nekk tournoi boo xam ne VIP yi dañuy ñëw ngir gagné fa ay centaines millions tournoi la boo xam ne li koy sabab mooy kan mooy doon roi des arènes mbër yi ñuy wooy VIP nag bu ñu paree xam leen ne CNG pare na bu ñu noppi woon ren ñu organiser ko ren leneen ma bokk na ci organisation yi CNG mbër yu am licence sans frappe ñaar fukki promoteur ak benn ci lutte sans frappe ak ñaar fukki promoteur ak juróom benn ci lutte avec frappe ci wàllu lutte olympique amagum nañ ci 35 licenciés écurie yeeg école yi affilié toll nañ ci manager yi amagum licence toll nañ ci ñaar fukk ak benn loolee mooy bilan bi nga xam ne amagum na ci saison bu ñu jàllee ci activité en perspective yële journal ba xam ne mooy drapeau chef de l'état jàpp nañ ko la waa ba la ca CEDEAO le 26 ba le 28 juin la bu nu jàllee ca combat ba doon dox ci diggante Jet ak Jam Teeri moom Jet xëy na fësal la mu xalaat ci bile combat moom Jet la mu xamle mooy Jam Teeri est tombé deux fois bile combat Jam Teeri daanu na ci ñaari yoon ñaari jël yooyee mu daanu moo a rassuré ma xam ne dana jot sama victoire danaa déposé sama recours topp ca lu ma yoon may ma jël te la ma yoon di may wóor na ma ne ndam lay doon fa ñuy jeexale mooy ca drapeau Ismaïla Madior Fall ca moo taxawal a fës ci utu yéenekaay bi ñu incha allah